يا نبي السلام عليك تيفا وان تيفي دي بيديو بلين دي جندي تي قدرتو التيجانية سلام عليك تيفا وان تلفزيون لا لميير التيجانية نحن أولاد التجاني من أبوات المعاني ولنا منه نصيب فوق غايات الأماني جمال الخيرات فينا احتفاظا بالمباني قد دهنا فأجابنا وهو مقباس الزمان جد وفرض طبيب نفسي مرآة الجنان صل يا ربي عليه وعلى آل التفاني صل يا ربي عليه وعلى آل التفاني fi sabilillahi hatta haddasu kulla makani wa cheikhu ahmadu tijaan mayam ya wa cheikhu ya xutbu lwujudi fa cheikhi yàlla ko may mayu maam ya xutbu lwujudi fa cheikhi yàlla ko may mayu maam ya fa man yulaadimu xut bi wattof ko moog dëkkandoom ya mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh gannaaw ba nu sante yàlla julli ci sangu-sang yi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp di baalu xaq ñëpp di ñaan suñu borom yàlla nu yàlla boole jégal li ñuy wax nag ñu ngi koy waxee ci ndigal ndax kër Seydil Xaaji Malick lépp lu ñu fiy def rek ci ndigal lañ koy defee ci ndigalu Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin bi nga xam ni mooy xalifa bi yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér suñu association bi di association soppey Serigne Babacar Sy yi nga xam ni ñoo nekk ci biir réew mi ak ci biti réew ñoo ñëwoon tey doon leen fàttaliwaat seen bis boobu nga xam ni moom la ñuy amal le 15 octobre bi nga xam ni moom lañ daan defee ca foire ba ren nag ñu ngi koy defee ca terrain ACAPES ba nga xam ni moo nekk ca Parcelles Assainies euh, ñu ngi ci woo ñëpp euh, di ci yëgal ñëpp ak mbooleem njabootu suñu maam Seydil Hadji Malick yëpp euh, ci turu ki nga xam ni nag mooy suñu kilifa di Serigne Sidi Ahmed si bu Serigne Abdoul Aziz bi nga xam ne moom la ñu Serigne Abdoul Aziz booleel ci la ñuy defee appel boobu kon duñ def lu dul rek jox ki nga xam ni mooy Serigne Khalifa Gassama bi nga xam ni moo nekk ci commission culturelle. buñu paré ñu jox Serigne Madoune ñass bi nga xamni moy mooy coordonnateur association bi buñu paré ñu jox soxna Fama ndjay bu Serigne Babacar Sy bi nga xamni moy yor walu relation extérieure buñu paré ñu jox soxna Rama Ciss bi nga xamni moy responsable comité santé ci association bi kon Serigne Babacar nga sama kàddu ga ngok bismillah a'udhu billahi samil alim minash asheytani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مبكي جلتني مبكي سنغال ينب جنا بنيو سنتي يالا جلتي سنغ سنغ يمي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيلين دي نوي دي لين زيارة دي لين بالو حق دي لين بالو di ñaan yàlla yàlla na yàlla boole jéggal fa tabaarakallaa di dellu di sant yàlla ba mu ñu may ñu fekk waat daje waat bii ñu daje tey du daje lu dul yëgal mbokk jullit ñi rawatina ñi bokk ci xadara maam Seydil Xaaji Malick daje bi nga xamante ni moom la association soppe Serigne Babacar Sy radiallahu taala anhu di daje ngir fàttaliku seen diggante ak seen cofeel gi nga xamante ni moo dox ci Serigne Babacar Sy ak ñoom di ci waxtaane tamit rôle bi nga xamante moom la ndaw ñi war a am ci biir diine ji pour mën a satisfaire li nga xamante ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tracé woon kon woote baa ngi noonu ñu ngi ci woo mboolem jullit ñëpp fu nit di wax ashhadu an laa ilaha illa allah fu nit di wax ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu ngi la ci woo pour nga ñëw teewe bis bi nga xamante ni moom la ñu daje ndax euh, dañu wax ni kat ad diinu an nasiha diine liko ko li ko li làmb li ko boole du dara lu laayante biir kon genre daje yu mel nii ci lañu mën a daje kenn ku ci nekk la nga ca mën a laay biir sa mbokk jullit nga dimbali ko ci laay biir kon ñu ngi ci woo ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu gannaaw bi ñu santee yàlla te di julli ci yonenteem bu tedd bi sayduna muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu di ziyaar waaye di ñaanal suñu xalifatul am di sëriñ abdul aziz si al amin di koy ñaanal di ñaanal njaboot Seydi Hadji Malick Sy yëpp radiyallahu taala anhu yàlla yàggal seen taxawaay yaakaar naa ni mbokk yi fi jiitu wax nañ li nga xam ne noonu la mbir mi di tëddee waaye li nga xam ne moom la ñuy wax rek mooy programme bi te bu 15 jotee jàpp 16 heures dinañ amal li nga xam ne mooy suñu mise en place waaye bu 16 jotee ba 17 heures dinañ def introduction du panéliste ki koy def mooy suñu mbokk oustaz Khalifa gasama waaye it bu 17 heures 17 heures jotee ba 17 heures 20 dinañ def li nga xam ne moom mooy pause prière takkusaan bu 17 heures 20 jotee ba 17 heures et demi dinañ def suñu hymne d'ouverture waaye bu 17 heures et demi jotee ba li nga xam ne moom mooy 19 heures dinañ def li nga xam ne moom mooy suñu présentation des délégations waaye 19 heures bu jotee ba jàpp 20 heures Sidi Ahmed Sy dina dugg ak ñun ci thème bi nga xam ne moom mooy le rôle de la jeunesse dans l'islam fa mu koy defee nag di Parcelles Assainies ca terrain ACAPES ba à partir de quinze heures ñu ci woo mbokk jullit yëpp di ko di ci woo it waa association yëpp di ci woo it mouvement yi nga xam ne ñoom ñoo jokk ci kër Seydil Hadji Malick ak ñi nga xam ne jokk jokkuwuñ ci wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu asalaamualeykum wa rahmatullah mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam ñun waa association soppey Serigne Babacar Sy ñoo leen teewal fii tey fii ci Tiwaawoon ci suñu kër responsable moral sëriñ Sidi euh, Ahmed Sy bu sëriñ Abdul Aziz Sy Al Amin teewaay wi nag du dara lu dul ñëw doon jël siwaat ndigal di fa di leen fàttali suñu journée de bi ñuy def chaque année ren muy le 15 octobre ca terrain wu euh, ACAPES ñu ciy woo jullit yépp nag bàyyiwuñu kenn rawatina nag taalibe cheikh yi ak képp ku dul taalibe cheikh woon nañu ñëpp. maa ngi koy commencé ci président Macky Sall bu ma ko nee man soxna Fama Ndiaye mu war a xam ne maa ngi koy liggéeyal bàyyiwu ma nag soxnaam soxna Marème fay Sall waaye nag suñu responsable politique bu mag ba nekk ca Parcelles ni ñu fay defee journée bi muy Amadou Ba bàyyiwuñu kenn ñoom Babacar ñoom Adja Dior ñoom ñoom ñëpp ministre gouvernement beeg ñëpp woon nañ leen parce que Serigne Babacar Serigne Babacaru Sénégal la Serigne Babacar si monde bi la. kon nag journée buñ ko taxawalee bàyyiwuñu kenn oo nañu Adja Ndeye Penda Gaye ca parcelle fàttewuma Adja Ndeye Mbaye madame Koné Mbaaco Ñaxaso ñoom ñépp ñu ngi leen di woo ku lim juum ku ma ku déggul sama tur rek sa sa tur rek xamal ne que loolu mooy mooy woote bi fàttewuma kenn li may wax nag maa ngi koy wax ci ci kaddu euh, kàddu euh, présidente bi di soxna Aïda Mbodj Aïda Mbeng soxna Aïda Mbeng kon nag woo naa ñëpp woo naa jigéen ñi ñëpp ñëpp ñëpp bu kenn des te ren nag vraiment bés bi dafa nar a ala dawme ndax parrain yi ñu ko tuddee incha allahu rabbi ñoom ñëpp fas yéene nañu teew ndax ku ci nekk wax nañu ko ku mel ni sëñ Issa ca parcelle muy mu xaddam bu mag boo xam ne bii kenn dootu ko présenté ndax moo def lu rëy ci ci ci ci ndaw ñi ba pare nekk ci ñi njëkk tàllal malaanu xadara bu bu bu buy mesurer cent mètres kon nag ku mel noonu bu ñu ko tuddee suñu bés bi vraiment mu nar ca teew dañ ciy ow ñëpp ci ci topp mooy Moussa si di parrain aussi Moussa si mooy maire Parcelles Assainies koo xam ne vraiment taalibe cheikh bu mag la lépp lu diine di def ca Parcelles Assainies daf ciy dugal loxoom kon nag kooku buñ ko jëlee parrain foog naa ne war na mët parrain te mët na ko te dina teew incha allahu rabbi ki ci topp mooy Serigne Cheikh eh, Tidiane Tambédou kooku kenn dootu ko présenté parce que bañ nañ ko ba le promoteur des daara lañ ko tuddee diine rek a ko ñor lu muy def suba ba ngoon eh, il faut mu jiital ci waa kër Seydi Hadj Malick rawatina nag eh, sëriñ Abdou Aziz Al Amin bu ñu jógee ci loolu nag ci jigéen ñi la ñuy dal suñu marraine ren ku mel ni soxna Ami Diagne bu Serigne Babacar Sy dëkk sa Parcelles Assainies unité 11 kooku kenn dootu ko présenté ki ci topp mooy Aïcha Sow Maris ñoom ñëpp di ay taalibe cheikh yu mag bàyyiwuñu kenn ñëpp lañu invité ci biir loolu nag dina dinañu rendre hommage ñi nga xam ne dañu jiitu ñu ciy jiital Serigne Mansour borom daara yi yal na yàlla yokk leeram ci barsax ñu ciy teg seexam bi di Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum yal nañu yàlla taas ci seen barke fàttewuñu nag amadu Diop mi nga xam ne chanteur religieux la woon ci suñu biir yàlla def mu jiitu mënuñu koo fàtte mukk ñooñu dañ leen di rendre hommage ca bés ba ñépp nag la ñu invité bàyyiwuñu benn daayira ma di ko commencé nag ci sama daayira ixwaanu safa soppay sëriñ Babacar si képp ku sopp sëriñ Babacar rek invité nañ la wala njabootu sëñ sëñ Haaji Malick invité nañu ñëpp ku lim juum di ñaan yàlla bés bi ñu yegg see jàmm ak salaam te vraiment mu doon une réussite totale ci barke Cheikh Al Khalifa mi moom même bés bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñun waa association soppe sëñ Babacar Sy ñu suñu troisième édition di ko def le 15 octobre incha allah fële ca terrain ak APES. comme ma jiite section santé dañu am ben événement bu ñu wër def le 7 incha rabbi rabi euh, mu nek journée de dépistage nga xamné wër gu yaram ñëpp ko soxla ñëpp ko wu té bu woni association soppee sëñ Babacar ci ñom ci social la ñuy œuvre di dimbali wante motax le 7 incha rabbi rabi ñu organiser journée de dépistage euh, journée de dépistage bi nak euh, limuy porté wu manam ñaari pathologie la ñu ciblé muy pathologie euh, cardiovasculaire muy jabet ak tension ci looñu loolu la ñu basé wu mais teewut dina ci yokk yeneen maladies yi ndax teew boo déggee journée dépistage ñëpp dinañ ñëw pour assister mais teewut loolu mooy base bi HTA ak jabet ñu fas yéene ci dimbaliwante nit ñëpp te di ko defee fale dispensaire Norade bu Parcelles Assainies ci wetu terrain ak APES le 7 à 9h incha allah. waaw mbokk yi kon bis baa ngi noonu di la 15 octobre incha allahu ca terrain akapes ba ci parcelle Assainies ñu ngi ci woo ñëpp euh, di ko yëgal ñëpp ku fa ñëw yàlla yàlla faj sa aajo ci barke Serigne kër si borom bonekaare bi kon duñ def lu dul rek jox suñu Serigne di si Sidi Ahmed si mu defal nu ñaan ci bis bi yàlla ci yàlla def barke ñiy ñëw ñëw ci jàmm dellu ci jàmm bàyyi jàmm fekki jàmm ci barke Serigne kër si wasalaamualeykum aleykum rahmatullahi wa barakatuhu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi ñuy لكور ñu ngi leen di nuyu ca nuyoo ba gën a tedd nuyoo ba gën a sell te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci ndigalu alxalifatu al aam li taifati tijaniya moolaana cheikh seydi abdul aziz al amin yal na yàlla guddal fanam te may ko wér ci ndigalu mbooleem rakkam yu baax yi mu feggool sëriñ babacar si mansour Cheikh El Hadj Malick Sy Aziz ak njabootu Seydil Hadj Malick yëpp noo leen di fàttali rek tabaarakallaahu bésu waa association soppe Serigne Babacar Sy tabaarakallaahu ci seen bés bu tedd bi nga xam ni moom la ñuy amal at mu nekk te di ko feddale seen wëllëre ak seen maam ju tedd jooju di seydi aboubacar si radiallahu anhu muy bés boo xam ni ci ndigalu seen kilifa suñu kilifa suñu sëriñ suñu wéyjur sëriñ abdul aziz si lañ ko ame muy bés boo xam ni tabaarakallaahu ñi ngi ko fas yéene amale ca euh, parcelle Assainies ca école wala terrain ACAPES muy tolloog le quinze octobre bii ñu jum si yàlla nañu ci yàlla yóbbu ak jàmm muy bés boo xam ne tabaarakallahu ndawi xadara cheikh alxaaji malik soppe Serigne Babacar Sy ñoo koy amal tënku nag ci li nga xam ni mooy seen feuille de te mooy bokk na ca dundal li fi mag ñi bàyyi muy seen ndono waaye itam tabaarakallahu tënk ko ci jàngale waaye tënk ko it ci fexe ba li ñu fi bind bàyyi ko fi ndaw ñi ñëw te xamuñu wala dañuy dégg rekk ñu mën a am lu ñu teg ci seen loxo ba ñu mën ko yóbbaloo boole ko ci seen dund loolu mooy rôle association bi ñu di ay ndaw yoo xam ni dañu ànd ak seeni wéyjur ànd ak seeni baay ànd ak seeni yaay ànd ak seeni kilifa ña ñu leen booleel ngir ñu ànd ak ñoom liggéeyal seen ëttu maam cheikhul xalifa seen maam seydil xaaji malik bis boobu nag tabaarakallahu ñu ngi ko jàpp ci bis dimanche 15 octobre ñu def ko nag ci ndigalu alxalifatul am li taifati tijaniya def ko it ci ndigalu njabootu seydil xaaji malik yépp képp ku dégg wax ji waa nga dégg annonce bi tabaarakallaahu xam nga ni war nga xam ni ci nga bokk mooy sa invitation mooy sa woote soo ko déggee nga mën a ñëw ñëwal nga mën a yable yableel nga mën a ñaan ñaanal ngir yàlla def ci ndam tabaarakallaahu ni mu ko defee woon ci édition yi jiitu te lépp di eh, seen tarbiya ci kër Seydil Haaji Malick ñaan nag tabaarakallaahu yàlla nañu ci yàlla yeggaleeg jàmm te yàlla defal leen jàmm defal ko sunu kilifa yi guddal seen fan te may leen wér ba mbébét ko bëgg ko ci seen xadara maam yu baax yi ñu mottali ko jàmm su ko defee mbokk yi woote baa ngi noonu ñu ñaan yàlla yàlla na ko yàlla mottali yàlla yàlla defal nu jàmm te defal leen ko incha allahu bés ba la mu fa laaj ci ay ndénkaane ak i eh, waxtaan ña nga xam ni tabaarakallahu ñoom la ko dénk incha allahu daañu ko yeggalee jàmm te ñuy ñaan rek ni ñu xamee njabootu xadara Cheikh Alxaaji Malik ci discipline ci dal ci teew ak teewal li nga xam ni mooy yitte yi boole kook la nga xam ni tabaarakallahu xam nañu leen ko ci wàllu organisation kuy ñëw rek nga bàyyi ko xel tabaarakallahu ba waxtu wa nga xam ni moom lañu rëdd ngir ñëpp mën a teew te ñëpp yi tabaarakallaahu mën a teel a yeeweku ñu ñaan ñu sàmm ko jàmm yal na yàlla boole defal nu jàmm te def ko ci réew mi wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يبديو بلين دقن ليك قدرتو التجانية سلام عليك تيفا وان تلفزيون لا لمياه التجانية